fas waxtaan yi xam nag mooy waa Égypte Égypte na gaay ñoom dañoo jommi fi mu ne ah <laughs> Égypte nee nañ donc ñoom daal dañuy jiñ Sénégal yoo xam ne mooy wàllu fruit ah ci âge bi loolu daal fi mu ne lañu wax mais aussi nañ wax Lionel Messi mi nga xam ne moo nar a gagné FIFA de best ak aussi li nga xam ne donc mooy yeneen actualité yi dooree ko tamit li nga xam mooy yéeni kaay bii di sunu lamb ci xëtu mu njëkk ñëw ni euh, les prémices de combat explosif maanaam combat Sa Thiès Reug Reug lu nar a neex la nag nar a doon parce que seen euh, face à face mujj dañ fa gis ne ab coow dafa daal di juddu donc ñoom ñaar nag CNG woon na leen pour xool aussi euh, ku nekk situation bi daal leen di averti ci lu ni mel yene kay bi ni record ñu wax ci Sadio Mané ne Sadio vingt-huit minutes pour repartir manam juroom ñaar ñaar fukk ak juróom-ñetti simili yi nga xam Sadio Mané joué nako ko pour ne aussi dellu si na wax aussi si ñoom li nga xam ñom ñaar daal di daanaat li xam moy donc wa pharaon d'Égypte yi li nga xam moy yene kay bi di stade ñëw ne Sadio a rejoué Diallo inarrêtable hein donc Sadio Mané moom jouaat na Abdoulaye euh, kii Habib Diallo moom kenn waxatu li waxam moom mais saa moom il est donc comme on dit il est dans dans les nuages hein, comme ni ko tubaab bi di daal di waxee mais aussi nga xam moy walum NBA dem nag Lakers moom victoire bu am solo ndax jëm ñoo dóor ñi nga xam ñoo dóor cent onze mais nag kii di LeBron James dafa daal di gaañu peut-être que saison bi daal dinay jeex façon bu defee ay test ak yooyu nañ ci am lu leer kii di King James wax ci aussi li nga xam nag mooy donc gars yi image bi laa leen bëgg a wan donc gis yi fii du du du Europa donc fi Maroc la gis ngeen seen stade ni supporter di def yëpp supporter marocain ñoko def ci seen match yi et tout et tout donc dañuy ñaan yàlla football du Sénégal tollu fi aussi ah, gars gaay ay tifosi di am yëpp di am ah, football bi gëna a gis ngeen li ngeen gis yëpp couleur yëpp do ay kii nit ñoko def ay nit ñoo def li ni ñom ñoo nekk ci kaw di ay banderole comme niko gaay def français et tout franchement li rafet na donc aujourd'hui bu ñuy wax développement football au niveau du Maroc franchement bo gisee xam ñom ils sont à à des années d'avance sur le Sénégal et sur tous les autres pays même bu fekkene gagné guñu trophée ki nga xam ne moom mooy donc Gonzalez di booy bi dugal bii bi tax donc keroog waa Real de Madrid daal di égaliser papaam nag nee na <laughs> tëb bii mu tëb fukki at a ñu koy liggéey ah fukki at muy muy entraîné di ak doom ji <laughs> donc loolu la papa ji daal di wax ki nga xam ne aussi nag moom mooy donc kii di donc De Gea donc effacé na record kii di Peter Schmeichel donc dem am 181 clean sheet Schmeichel 180 la yemoon. de Real donc actuellement donc il va égaler il a déjà dépassé donc il établit un record déjà établi un record mais dina ci yokkaat yeneen clean sheet parce que joue toujours qui nga xam aussi nak moy donc Eric Ten Hag ngeen gis ko fi mu ak Sir Alex Ferguson Ferguson nga xam il est admiratif maanaam dafa fan booy parce que né day gis boppam ci ni Ten Hag di entraîner je pense que c'est une bonne chose donc qui de de la part de Ten Hag am cede go xamné ki di Alex Ferguson mo la ko seede Weghorst nak mom démb gëmeewul sax trophée bi donc Weghorst fi ngeen ko moy le joueur hollandais bi dugaloon contre euh, Real de Quito contre Argentine

jàpp ne dañ ko génne xaw moo ko génne dafa kat yi li nga xam ne nag mooy donc a joxe tey Thomas Müller dafa kontaanul trop revoir ki nga xam ne mooy Sadio ci terrain moo tax mu daal koy yooyu indi ko ne ko merci merci de de de revenir gannaaw bi nga xam ne dañoo war a daje Paris Saint-Germain donc Sadio Mané et de retour dañ koy ñaanal nag match yi ñëw mu daal di enchaîner dugal incha allahu rabi mais gars yi nag ah <laughs> nawoon fawoon xam ngeen égyptiens yi ah yi xam kan moo leen tooñ égyptiens yi ki leen tooñ. mooy banque gi gars yi di wax quoi gars nee nañu ay kii laser benn tooñ tooñu leen de Mohamed Salah mi paasu woon Sadio Mané ci Liverpool indi woon coow depuis boobu Sénégal yi di leen jooyloo saa su nekk nag ah mais nag affaire bi ah, ñoom nag fi nii nee ñun Sénégal dañoo fraude sur âge bi quoi nee nag le gardien de l'AS Pikine nekk suñu gardien titulaire bat ci nee donc booy bi <laughs> boo ko xam ne kii amul nirawul ko am vingt ans quoi loolu la wax moom quoi man nag Chérif ne ñoom li ma leen di wax rek gars yi indi leen sax boo leen bëggee ngeen indi sax ah seen suñu mbër bu fekkee am ngeen mbër wala boo ngeen tànn yéen sport bi nga xam a ay ah, yéen ne ce leen gis depuis kañ lañ ñu ngi fi chaque chaque année génne ay jours yoo xam ne dañ leen amuñu âge génn leen waa CAF génn leen Sénégal mosuñu ko see jàpp gën nañ ko see jàpp bokk léegi jamono ju bokk depuis quelque temps politique bi ñu indi loolu donc gars yi c'était les informations que je voulais vous donner wéy leen di like wéy leen di abonné partagez leen vidéo on se donne rendez-vous tout à l'heure jaa ngeen jëf